ma waroon a jot këyit gu ma wax li ma fi fekk lan la lan laa fi fekk ci compte yi lan laa fi fekk ci meuble yi ak li li ses am lépp lan la ki ko yoroon waroon ko bind ci ay këyit signé ko wax dat bi mu ko siñee parafe ko loolu fekkuma ko fii bi ma ko fi fekkul itam wax naa ko ki ma ko war a wax mu ni ma defal sa situation de référence ci loolu laa santaane fa la yem mais fuyewuma gestion ma sàmm taluma loolu li ma tal mooy ëmb ba ma jëlee ci waxtaan wi ma ma jéem a seet nu ma koy lijjante mais daal lu dul ma dem ci bibliothèque bi ci archive yi seet yan xalaat la fi Aminata taal def yan xalaat la fi Aminata Touré def yan xalaat la fi Famara def yan xalaat la fi Boissier Palan def Magatte Lô euh, Guirassy et cetera pour jéem cee jël bala may euh, wax loo xam ni ndekete defoon nañ ko bu yàgg te yëguma ko loolu dinaa ko def mais fuuye naan gestion bi nii loolu du sama liggéey

jamono yi dajale lañu nek nekk jamono yi boole la ñu jamono yi jëm ci kanam lañu nek donc vraiment loolu bëggoon naa bëggoon naa mu leer puisque dégg na ci ay ay wax yu bari secrétaire général bi fii ko fek wante duma né ndax ki ko fi indi kaa ko fi indi dama na ndax li ma bëgg pour président mi ma ba tek ma fii dootul amati ci dundam ku mu war a mën a gën a wóolu ndax qualité liggéey bi ma koy jox ñi ma bëgg ñu jàppale ma ci ndax man nañu ko wala déet bu ñu ko manee rekk jeex na bu ñu ko manee du ma di wuti keneen <laughs> xam xam nga voilà loolu daal moo loolu daal moo ci moo ci am importance